ko fayin ko fayin ko wani ko wani ko wani ko wani ko wani ko amagoro yu dofu la bu ñu ñaanale dañuy am xaalis bu bëri bëri bëri dofu xaalis bu bëri bëri bëri bëri waaw waaw oui waay jërëjëf jërëjëf jërëjëf yaay géral bi sa bopp ñoom majaal gi la woon bërki dem monsieur le Maata Maata ah moom pare na ba pare xaaral ma ñëw génn dem ñu di gis leneen loo te moom laa doon liggéey. Maasta. naam. ay waay gone goo xam te ne boo koy woo wax wax wax ba sa bëri gi xotteeku. Ah. yow dama bëgg a ñëw génn léegi léegi dama bëgg nga toogal ma fii suukaral ma café gi ba ñëw. loolu nga bëgg waaw. Ah, ah dama. maa ngi ñëw léegi nag. dama xool ko defati yow mën ngay sonn ma suukar sama yoon nekkul mu neex laa koy suukaree mu neex laa koy suukaree Ik ben al te vandaag. Namnalen koren, ayın çıkarı. Yani. Koren, yine bu. Papa daal bu ma toogee may deraat suukaral naa ko sama yoon nekku ci li ma neex naa koy suukaral. Ba ko suukar nga ba pare. waaw oh, papa suukar naa ko. waaw ah, jërëjëf kon kay day amal de doom day amal njëriñ baayam. papa yow suukar naa eh, gi rek. ñàkk jom bay bëgg a dee. eh waay yow jërëjëf waay. la ilaha illallah. tey eh, moo gënoon. mënul jënd sax sottiwul waaye yàlla baax na. alhamdulilah bu ko defee teel ma teel a mën a dalu ji. waaw kay. li de yaa ngi toog. waaw maa ngi toog waaw kay yow. kaay kaay kaay kaay kaay xoolal ma ba xam sama lii ñu war a gi sukaral ba xam baax na wala baaxul. nijaay nag damaa woor nag. waaw yow yow yow ah eh eh kaay nag xamante nañ kan xam naa ni wóorul kaay. sama estomac bi xool xam nañ lépp du estomac. règle d'or bi la règle d'or bi la jàpp ñëwal ba xam sax na sukar. yow billaay sama nijaay jaaxal nga waaye ah xam nañ ñu demee règle d'or bi la. yow lii xorom rek la di. xorom la. xorom rek la. tey. waaye yow ndox mi yow mi yow amul ndox waaye man dem naa bitim ba leen foofu. ma. ñu bokk lan la. a ko. man mi ak xorom café man ma suukar ko. waaw jege si bool. eh. yow lan la xam nga li nga def. lan la mën a suukarloo café nga dem xorom ko. waaw papa du man du ma sa yow. waaye waaye nii rek nii